commerçant yi nekk ci marché bu Padoua ne déedéet duñu fi taxawal bile supermarché tax ñuy fàttali ana lan moo taxoon jóg bile projet ci bile daluwaay lu ñu mel nag bokkul benn yoon ak li nga xamante ne ñoom commerçant yi moom lañ doon xaar ci bile projet. dañu amoon benn promoteur. ñu ni kii moo ñu tabaxal marché mu wan ñu plan boo xam ne doy nañu. mu am banque ci suuf am restaurant ci kaw. léegi nag ñu commencé tabax marché bi ba ñu tabaxee marché bi ba marché ñu dugg ba ñu duggee léegi nag ba ñu demee ba benn moment ñu toog ba yàgg. ñu gis ni moom li mu waxoon respecté wu parce que dafa ñëwoon ni def nii defal banque ci suuf ñu gis ni supermarché dafa bëgg ubbi kon nag li muy waxoon nañu naka respecté. ñoom commerçant yi nag seen jàqare bi gën a rëy mooy clients yi neex furaas ni xëddeen ci bile centre commercial rawatina tur bi ñu def ci enseigne bi nga xamante ne mooy doxal jënd ak njaay mi. mais yow xam nga xel sax dafa nanguwul tey nga jël ñaa nga jël marché teg ci kaw marché tey nga teg ñëpp ci biir nga ubbi tey ku nar a ñëw ci marché bi xam nga marché dèjà kenn xam ko léegi ku ñëw i fekk supermarché ubbi ci bunt li nga doon war a jënd nga gis ko ci bunt bi fa nga yem commerçant yi nag ne seeti nañu képp kuy kilifa gox ba moo xam gouverneur sous préfet wala sax maire bi ngir dal di dakkal bule le projet ci noonee ginnaaw gi ñu dal di dem ci municipalité bi waaye ginnaaw agent collectivité territoriale yi danoo banque seen i yoxu tax na amuñu kenn ku ñu mën a waxal waaye ñoom commerçant yi di xamle ne dinañ xar seen tànk tubéy ci bi le xeex te it duñu dellu ginnaaw benn